yéeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf baatu procès turu Adji Sarr ak turu Ousmane Sonko saf nañu sàpp ci yéen kay ñu xëyndal bokk ci ñoom l'observateur mi ñu wax ne tuumay viol ji Adji Sarr teg ci bi tey ji ca lay leer sour de vérité bi tey bi woolu na la ñoom ñaar muy Adji Sarr di Ousmane Sonko ca kanamu chambre criminelle ngir ñu dem leeral fa coow li bu dee kii di Adji Sarr dana dem tribunal Ousmane Sonko moom awagul yoonu wuy ji waaye ak lu ci man di am L'Obs nee nañu dégg nañu ci rajo Futur Média RFM ne président chambre criminelle bi nee na gis Ousmane Sonko ak bañ ko gisayam mbir mi dinañu ko àtte Ousmane Sonko demul tribunal teewe àtte ba l'observateur nee nañu li ñu naan jugement par contumace la ñu koy def looleet li ko ca mën a fekk l'Obs mi ngi koy waxtaane ak i kàngam yu seen xam-xam màcc jëm ci wàllu yoon fukki nit ak juróom yi justice bi woolo ne ay témoigné ci coow li l'observateur mi ngi ñuy wax ñan ak ñan la Sidi Ahmed Mbaye la docteur Alfousseni Gaye gynécologue bi Aïssata Ba Salawad Mamadou Mamour Diallo Aminata Ba Elisabeth Gomis Mamadou Fall capitaine Oumar Touré Ababacar MC tàllal ay loxoom yàlla sunu borom di ko ñaan ngir mu aar Sénégal sàmm réew mi la sine kay nañu ko yóbbu amuk tiitange ci procès bu tay bi ndax ab procès la boo xam ne lu ne mën na ca am Sud du Quotidien di ko dëggal ci xëtamu njëkk ba tegal ñu ci ne Sénégal fi ñu toll nii kenn noyetul coowal Sweet Beauté yi tey ji ci lañ koy ubbi ca kanamu chambre criminelle lise ko gis ne ak renvoi mi ngi xeeñ ci procès bu tay bi Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye ñoo ngi leen di séntu tribunal Ousmane Sonko moom nee na demul Le Quotidien Rewmi Quotidien ak Walf Quotidien ñoom xëy di ñu wax président bu parti Pastef bi di Ousmane Sonko bu demul ñu àtte la ko ca mën a fekk ñu fekk ci xët mu njëkk enquête dina kay Adji Sarr ak Ousmane Sonko journal bi dañu wax ne Ousmane Sonko bu demul tribunal ci coobarey boppam kenn du ko forcé di ko jëli di ko yóbbu tribunal enquête dellusiwaat na ak ñu nit ci manifester yi amoon démb ci Ndakaaru ak ci Sigicoor ñaari nit yéene kaay bi nee nañu faatu nañu ci manifestation yi benn policier ci Sigicoor ak benn xale bu góor bu tolloon ci fukket ak ñaar bu faatu ca mbaaw li faatu démb ci réew mi ci manifester yi journal tribune nee ëpp nañu ñaari nit ñetti doomi aadama ñoo ñàkk seen bakkan ci manifester ci réew mi démb loolee bu fekkee nit ak ñeent yi faatu woon ci weeru février février jàpp mars atum 2021 lépp lépp dafay doon fukki doomi aadama ak juróom-ñaar yu ñàkk seen bakkan ci réew mi ndax massage Adji Sarr beeg Ousmane bi këriñ luy booy ba xonko cooy journal Le Témoin gis na ne suñu réew di Sénégal ca la toog jamono ji te yëf yi mi ngi bëgg a jéggi dayo ndax dund nañu démb fitna ju rëy ci Sigicoor ci Ndakaaru ak yeneen i diiwaan yu nekk ci réew mi am na benn policier bu accidenté ba faatu am na benn manifestant bu faatu ci Sigicoor am na it beneen manifestant bu faatu ci Kër Mbay Fall Libération bind ne am na ñetti bakkan yu rot démb ci Ndakaaru ak ci Sigicoor naa jaxasoo Ousmane Sonko mi waral coow leeg mbambuli ma nga lëlu ca këram ca Sigicoor leader yu yeewi askan wi demoon Sigicoor ne dañu koy jàppale Source A mi ngi ñuy xamal ne ñoom fa ñu leen logé dañu koy nëbb Abdoul Mbaye ci waxtaan yu mu xëy def ak waa ma nga fay xamle ne ci sama xalaat li gën ci Ousmane Sonko mooy mu demal boppam tribunal taxaw ñu àtte ko ñu koy forcé di ko yóbbu ci xew-xew yi xew ci réew mi journal bés bi la ci ñu taxawee ci ci coowal Adji Sarr leeg Ousmane li le témoigné nee nañu jeunes yu COJER yi ñoo ngi koy ñaawlu bu baax a baax ak par parloo la ñu ci gis Moussa Sow coordonnateur bu COJER moom ak jeunes yi mu bokkal COJER nee nañu ci journal le témoigné ne gis nañu ne société civile bi ci réew mi tëddeewul njaaxaandaay ndax Ousmane Sonko munu fee nekk def lu muy def def fi lu ne weng yoon woolu ko mook Adji Sarr ngir ñu taxaw war koo leeral Ousmane Sonko bëgg a taal dëkk bi bay woo jeunes yi réew mi ci combat boo ne seen yoon nekku ci ndawi COJER yi ne jeunes yi ci boppam a bañ loolu seen agence de voyage voyage